RTV Dakar yéen ñi aboneegul gul aboné leen gaaw bu leen fàtte bés close notification bi ndax mooy tax ngeen di jot sunuy vidéo jàngeen jëf. ndax bu ñu amul woon yonent bi kenn du ñu interpréter philosophie asamaan bu ñu amul woon cheikh kenn du ñu interpréter philosophie yonent bi bu ñu amul woon Maodo kenn du ñu interpréter philosophie cheikh bu ñu amul woon Babacar Sy kenn du ñu interpréter philosophie Maodo. loolu mooy li ci nekk ci bakkan am na bis fekk nit dañu daan daje ci kër diw caccatu dëkk ba di waxtaan gannaaw timis kenn ku ne di wut koy donnal yonent bi waaw ñuy nëbbu jamono timis di def ñoo foofa ku nekk naan ah loo xam ci Aboubacar kii ni loo xam ci Ousmane kii ni loo xam ci diw ndeke ñu ngay kenn ku nekk koy féeteel waaw te boo féetee rek àdduna tukki kenn rek moo mat a féeteel mooy yàlla mi la bind kenn xamul yonent bi ni mu daan yare waa këram te kenn xamul woon ni yëg na lool kenn xamu ko mu xëy suba rek génn julli suba ba noppi génn waxtu la waxtu la bu neex a neex waaw waxtu euh, euh, boo jullee suba ba noppi génn waxtu bu neex la waaye am na ñoo xam ne nag dañ cay nelaw waaw moo tax rekk taxu ko baax torop mu génn aboubacar topp ko omar topp ko ñu àndandoo di doxantu ba toll kër ga gaañi defe réunion timis di wut ku doon nag ku doon la ha. waaw boroom kër ga génn gis leen ñoom ñett ni ah lu ngeen ma may dugg si te bu ñu duggoon kese kese kese rekk àdduna tukki parce que dina saxal seen daje timis ya waaw ni ngeen may ma dugg ci rekk ndax xam naa ni seen gémmiñ dara du dugg ci ñu dugg mu jox leen tàndarma ñu lekk mu jox leen meewu gëléem ñu naan ba ñuy génn Sayyiduna Abu Bakar وجاك الجن جوخ كل يكو جزاك الله عنا خير يلنا يلا فيلنو ليو سيدنا عمر تبوجا يكو جزاك الله عنا خير يلنا يلا فيلنو ليو يونتي بياك سي جوخ كل تي لخو يو غيس nga terang bi nga nu defal daa ko justifié ci sa kanamu borom summa la tusalunna yawma idin ma naim Aboubacar ni yàcc Omar ni yàcc waaw ñoo xam ni yëf yi dafa am borom yëf yi dafa am borom waaye ba tey loolu dafay am ci mbooloo mbooloo dafay bari ñuy tànnal seen bopp te boo tànnalee sa bopp rek daan parce que li ngay tànn moomuloo ko ki ngay tànn moomuloo ko da nekk naafeq rek mën a tànn waaye booy tànn loo moomul te ka naafeq nga ça il faut le ba moo tax loolu li ci yonent bi daj kenn mësu ko daj ci dénoncé ñi ko gën a jege te yàlla may leen daraja parce ñi am daraja bu ñu dee sa entourage te amuloo fit doo leen dénoncé mukk ndax da nga naan damay ñàkk mbooloo damay ñàkk mbooloo te mbooloo du jëriñ nit yàllaay jëriñ nit waaw loolu mooy li nekk waaw ah alladina qala lahum nnaas inna nnaasa qad jamau lakum faxshaw fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa niamal wakiil waaw moo tax lu mbat a xel waaye nun comme ay lompoñ lañu ñooy tànnal suñu bopp waaw ndax lompoñ moom lu ko neex def waaw benn bés jigéen ñëpp daje nañ woo sayidatuna Fatima ni ko waxal ci sa papa waxal ci sa papa waxal ci sa papa xale bu tuuti bii mu topp rek ñu di ko wax Aïcha nga xam ne juddoogul mu fexe ba confisquer sa dundu baay bi rek waaw te juddoogul asum gu ne la demal wax ci rek xol bi fudd ñu ko ay Xadija moo dimbale sa baay ba mu agsi fii kon nag bul nangu xale bu tuuti rekk confisqué dundam Aïcha mu dal di xol bi jóg muy seeti papam wax ko dëgg waaye fekk fa Aïcha mu ni kon bu ma ko waxee dëgg damay jëw Aïcha wala marambaaj te yi ñaar fa suma ko yéene def ci sama dund dafa mujj bàyyi ba Aysa ñëw yonent bi suwoonu ci pooju Aysa mu ni ko góor gi ñëpp ngi ci sa kaw mu ni ko ci lu demee mu ni ko xale bu tuuti bi confisqué sa dund rek ñëpp ñàkk mu ni ko innaha la sadiqatul li abik mu ni ko c'est une copine pour ton papa yam foofa wax nañ ni keroog sayyidatuna Fatima yëg na nu mu nekkee doomu yonent bi nu mu ko mësul yëge mukk waaw keroog sayidatuna Aïcha yëg na nu yonent bi nekk copain ci façon bu mu ko mësula yëg mukk muy benn couronne bu làmb ñaari bopp pour wax la li mu daan daj parce que fi mu àggoon ci ñor la kenn àggul waaw te nit ku mel ni moom xam nga arab dafa naan kilifa sàngam njabootam lam yasuqu gubaara kilifa sàngam njabootam xotti wuñu pëndëm te koo xottiwul pëndëm doo ko seen doo ko seen am na kilifa yoo xam ni seen njaboot du xotti pëndëm ndax raw bu metti rek waaw ndax raw bu metti gu muy raw entourage loolu ki ci jëkk mooy yonent bi su ko defee ci biir loolu mu nekk ñoom ci façon boobu di leen yar ba tabaarakallaahu waaye terewul buur bi itam position yi muy jël kenn mënu ko ci jële nanguwul chantage ci entourage yonent yi nangul manipulation ci entourage yonent yi wa daf ko wax bu wér ولا تطيع ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا فيفيد entourage kilifa yi bu ñu ko dul segg noonu rekk àdduna tukki mais borom bi nanguwul kenn kenn def chantage yonent nanguwul kenn kenn ku ko manipile parce que itam dañ koy yàqal moom borom bi moo tax mu teel ko wax yonent yàlla dafa dogal am benn mbokk bal ma dama soj de daa yema damay soj waaw dafa am benn mbokk bu ma mës gis ca Ndakaaru mu ne ma dal dama bëgg gis góor gi ma ni ko lu tax mu ne ma dama ko bëgg wax ni ko bari na lu yàqu te ko yàq ndax fu ne laa daan dugg di sos fu ne laa daan dugg di yàq maa nga ca renseignement généraux ya maa nga ca police ya di yàq léegi nag sama xel wax na ni naa dem tuub ci moom bu ko defee jàmm rek ay am xam nga loolu su ko waxee maa cay gën a sawar ndax booba man la ñu gën a fitnaal waaw ma ñëw wax ko góor gi ndeke jàmm am ja jàmm am ja mu wax góor gi chantage la ci dégg خمنني شانتاج لا ودال دي جل آيب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ما خاو جاخلي نك أبوها سنيون دي مو بني mu ni maay ca nañ ko jox bés ak waxtu ñu mujj ko jox bés jox ko waxtu ma xam waaye d'accordu ci yàlla te bés ba ñëw mu war a ñëw ci onze heures ñu di ko xaar ba une heure ñëwul dafa accidenté ba gaañu loolu kenn mësu ko pour wax la ni ñoom li ñu bëgg rek mooy am nga yow li nga bëgg du am dëgg-dëgg waaw ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا من ينك لولو نغنل كي سنو أنتراج أنتراج بولي مانيبولي أنتراج بولي دف شانتاج تكالكو دف بولا سوري نغوير كوكو كاتاستروف كوكو كاتاستروف لولو كندو كنن مو ملني كون li yàlla wax ne xar baax dagg na ko ndax ñoru yonent bi moo ëpp doole xar baax te xar baax xay yi am fukki minit dem kooku lom ñi rek la mën a jëri waaye ngand pire jikko yonent bi rek ko mën jëriñ waaw waaye xar baax du ko jëriñ xar baax yëfu xale la yëfu xale la hmm. moo tax mu tere ko yonent bi jox ko jikko jox ko jikko jikko sax bi dàkk di xar baax bu sax dàkk ci la yonent bi toll te ñoram àgg na ci yéeme yonent bi jikkoom di xar baax bu sax ba faw waaw bu yéeme la waaye terewul am ñu ci d'accord wax ni philosophie la boo xam ni dafay agresser seen culture ñu di ca xeex di ca xeex même tubaab yi ci ñi ca xeex bokk nañ ci jàpp nañ ni philosophie yonent bi dafay agressé seen culture te fekk na agressé wu ko yonent bi dafa ñor rek te ñoom ñoruñu loolu rek la waaw ça il faut ba ñoom jàpp nañ ni daf leen dafay agressé seen culture mais am na xale yu ci liggéey ci biir tubaab yi ku ci mel na parce

والمؤمل غيبه ولك الساعة التي أنت فيها تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ستالول نيت كي غانيكو بول بول غيستو لي باسي بول سينتو لي نيو يمال تي لي تكولتيرام دوكو نانغو parce que culture yëpp dañuy geesu li passé di séentu liy ñëw mais culture yonent bi nangu ko nangu ko tamdi layali wala yadrona iddataha ak mama bafat mama bafat wal muhammadu ghaibu walaka saatu allati anta fiha kooku boo dul homme d'action bu jéggi doy doo ko mën a appliquer mukk doo ko mën a te du sotti doo ko mën a appliqué waaw moom la Maodo daan wax ni dañ ma daan taggal sama maam ji gannaaw gi laa xam ne dañ may nax waaw sama maam sàngam diwala jur diwa ko jur diwala ko jur diwa ko jur ma ni waaw loolu tagg la sama maam diw moo rey diw moo rey diw moo rey diw waaw yàlla di dundal yow ngay rey mu ni maa ko seetlul sama bopp rek génn ca xam ni doxul waaw ku yéeme la parce que dafa dëgër bopp Maodo dafa dëgër bopp dafa dëgër bopp ba nga ni mu doon moo tax entourage am nekkoon ñu ñu ñu doy waar dañu daan jaaxle dañu daan jaaxle euh, mais moom li mu xam rek la xam waaw sëriñ Alioune Guèye nee na dama xëy ca fajar ànd ak moom di ko seetlu ñu dem jàkka ba ñu jullee ba noppi wadifa ba ñu wadifa ba noppi mu waare bi mu waaree ba noppi mu wàññeeku ñu indi téere yi mu commencé jàngale ne di jàngale ba saxaar war a ñëw mu ne nañu seet ndax ay gan ñëw na ñu seet gan yi ñëw ñu laaj leen seeni soxla ñi ci bëgg ijaaza ñu defaral leen ijaaza bu ñu noppee ñu dellu ca jàkka bu ñu jógee ca jàkka ji mu commencé jàngale ci téere yi dootul waaraate ci téere yi lay jàngale nee na di jàngale ci téere yi nee na ca lay nekk ba tabarkal la ñu julli tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi commencé ñi desoon ñu mottali leen nee na di waajal timis yi bu ñu jullee timis ja ba noppi wasifa bu ñu wasifa ba noppi jëm ci gee bu ñu julee gee ba noppi mu waaraatewaat nee na bu min wi dee jot nee mu jóg mu jóg topp ko ne yenul ko téere yi ñëw ba ci biir néeg bi mu dal ni teg leen yi ci kaw lal bi ñu teg yi ci kaw lal bi mu tëdd ci suuf waaw mu ci suuf mais ma ni ko góor gi lii metti na li mu ni ma doom ku ñu fekkul woon nga raw nga xam waaw xam nga mbooloo su mën xaatil la waaw boo ko jëkkee rek rey sa bopp parce que su mun xaatil la boo ko jëkkee rey sa bopp moom nag loolu la xam mu jëkkee ci boppam mu jëkkee ci boppam ndax daf daan tànn nag daf daan tànn ku dëgër bopp la woon tabarkal moo tax rekk lu mat a xel lu mat a bàyyi xel ndax itam nit dafa rëy ci yàlla bu la ñett toppee rek alku nga alku nga ñett ñetti nit RTV Dakar yéen ñi abonné gul leen gaaw bu leen fàttee bés cloche notification bi ndax mooy tax ngeen di jët sunuy vidéo Jangin jëf